Euh, monsieur le président monsieur le premier ministre monsieur les membres du gouvernement euh, maa ngi nuyu sénégalais yi yëpp seen tour ak seen sant mu ñëwoon tey rek euh, pour présenter une question d'actualité euh, selon le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des bâtiments et des travaux publics monsieur Alassane Ndao dans une déclaration du 28 avril 2023, la dette à payer par l'État du Sénégal aux entreprises sénégalaises du BTP s'élève à plus de 200 milliards de francs CFA. Et là, il euh, énumérait simplement trois grandes entreprises sénégalaises du BTP, euh, sans compter les autres entreprises. Quelles sont les mesures prises pour payer dans des délais raisonnables les arriérés de, les arriérés de paiement la dette intérieure due aux entreprises sénégalaises quest l'attribution des grands projets d'infrastructures et des concessions euh, de l'État à des entreprises étrangères ou à leurs filiales domestiques au détriment des entreprises sénégalaises du BTP. on peut citer le TER, on peut le à péage, le port de Ndayan, et dernièrement, on a l'autoroute Dakar-Tiwawan-Saint-Louis, qui a été attribuée euh, de 335 milliards de francs des entreprises sénégalaises. Certes, la Côte d'Ivoire est membre de la communauté de l'UOMOA, mais nous pensons que on pense pas nous pensons que warul euh, waruñuy jël xaalis boobu yépp joxe ko bitim réew bàyyi sénégalais yi toog fii di ñàkk liggéey chômage bi di gën a wéy mbëkk bi parce que quelqu'un a parlé des jeunes mais mbëkk bi ba léegi moo ngi am émigration clandestine bi donc mënuñoo wax ni réglé nañu situation bi donc loolu ñu bëggoon leen ci laaj ay tontu ngeen ngeen indil ñu ci ay tontu gis nañu lu weesu deux cent milliards yu ngeen amel entreprise BTP yi. amel ngeen cent quarante cinq milliards également état importateur d'hydrocarbures yi si wa ay perte commerciale amel ngeen également deux virgule cinq milliards distributeurs yi amel ngeen per si péréquation transport distributeur d'hydrocarbures yi amee ngeen dix à quinze milliards entreprise yoo xam ne mooy bureau d'études yi prestation intellectuelle amee ngeen seize milliards école privée donc jamono ji entreprise yi ñoo ngi bëgg a dee entreprise sénégalaise ñëpp ñoo ngi vraiment à l'agonie ils sont étranglés par les dettes et les arriérés de paiement yi nga xam ne état ameel na leen ko te loolu moo tax chômage bi di gën a wéy émigration clandestine bi di wéy Sénégal nekk 170e pays sur 190 à l'indice de développement humain gis nañ ñu tamit da lu tax ba léegi rencontré woo leen secteur privé depuis sept ans te Macky Sall diggante 2012 ak 2020 rencontré na six fois le mouvement des entreprises de France ba dem seen université d'été te mënul rencontré le secteur privé sénégalais est-ce que ah, MEDEF moo ko fal wala sénégalais yi ñoo ko fal. donc li ñu bëgg monsieur le premier ministre ngeen servir d' les intérêts des sénégalais balaa ngeen di servir intérêt MEDEF balaa ngeen di servir intérêt chinois intérêt turquie ak intérêt marocain yi bañ ñu kenn mais teranga dañ koy commencé ci réew réew mooy tabax réew monsieur le premier ministre chers euh, membres du gouvernement bon effectivement la question qui a été posée par le secrétaire général qui parle effectivement d'une dette de 200 milliards due au BTP Je voudrais tout d'abord rappeler qu'il s'agit du budget d'investissement. Globalement, le budget d'investissement que j'ai eu à défendre ici portait sur 1588 milliards de francs CFA. 1588 milliards de francs CFA et à date, le taux d'exécution de ce budget d'investissement est de l'ordre de 43,5% du point de vue Maintenant, au niveau du ministère des infrastructures que vous avez abordé, le budget que vous avez voté fait exactement sur l'investissement 238 milliards. Déjà, le budget qui a voté ici en faveur de du ministère des infrastructures concernant les dépenses d'investissement porte sur 238 milliards de francs CFA. Ce budget, on l'exécute Il dans la dette dont on parle, il y a trois catégories à distinguer. Tout d'abord, il y a les paiements directs par nos partenaires techniques et financiers. Retenez qu'à date, tous les décomptes qui ont été soumis au gouvernement et qui devaient être payés par les partenaires techniques et financiers l'ont été pour un montant de 101,5 milliards de francs CFA. au titre de la gestion 2023. Ressources extérieures, je dis bien, au niveau des ressources internes payées par le Trésor public, à date, le Trésor public a payé pour le secteur des infrastructures, ministère des infrastructures, plus Promoville, plus les autres infrastructures, au total 210 milliards 400 millions de francs CFA. Et le troisième axe de la dette, c'est le paiement des droits et taxes. Les droits et taxes sur les financements extérieurs au Sénégal, quand un projet est financé sur ressources extérieures par des prêts, on ne l'exonore pas, il y a des droits et taxes à payer. C'est là-bas où se situent les arriérés. on a à peu près 100 milliards de droits et taxes. Ce pas des débours financiers du trésor public, mais c'est des opérations d'ordre. C'est à peu près 100 milliards de droits et taxes et il y a 73 milliards de francs CFA qui sont au titre de cette gestion avec la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques. Voilà les trois mécanismes qui existent. au Trésor, du point de vue des instances Pour les infrastructures, il reste 10 milliards 600 millions de francs Voilà exactement la situation. C'est une situation tout même dynamique qui évolue à chaque fois parce que c'était le 29, vous aviez parlé d'avril, entre-temps ça a les décomptes même au moment où je vous ça a Donc voilà la situation que je Maintenant, l'autre point, c'est relativement un peu au grand projet d'infrastructure que vous aviez indiqué tout à l'heure. Et je pense que je l'avais expliqué ici, véritablement, les raisons qui font qu'il y a certaines entreprises étrangères qui exécutent effectivement des marchés, il y a des offres spontanées qui sont faites avec les possibilités de mobiliser des financements importants. Et ça, c'est des offres spontanées qui sont prévues dans le cadre du Code des marchés publics et qui sont régulières. Donc, à mon avis, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, il y a effectivement des dispositions qui sont prises par le gouvernement sur instruction du président pour renforcer les garanties. Vous avez vu au niveau de la BNDE, au niveau de la LBA, et au niveau de certaines structures bancaires pour les renforcer, pour renforcer notre, les capacités des entreprises nationales. Il faut savoir qu'on applique exactement les dispositions au niveau de l'UEMOA parce qu'il s'agit d'entreprises communautaires établies effectivement au sein de l'UEMOA. Je pense que à ce niveau... waa Sénégal monsieur le président de l'Assemblée nationale premier ministre ñu ngi lay nuyu ak gouvernement bi di tàmbale rek ni ko président assemblée nationale tàmbale bi muy ubbi mooy jaale suñu collègue député bi nga xam ne dafa bokkoon suñu groupe parlementaire di bokkoon ci PDS ma jàppoon ne en tant que njiitul gouvernement en tant que premier ministre boo ñëwee bala ngaa yëkkat sa kàddu danga nga jaale sa député yi fi nekk yëpp mais vraiment gis naa ne defoo ko kon maa ngi lay ñaan nga def ko pour que nag député yi ki leen ki fi faatu fii la nekkoon doon liggéey ci askan wi kon war ngaa mën a yëkkat sa kàddu nga jaale leen avant ngay tontu monsieur le premier ministre maa ngi laaj sama question ci mbirum mbay mi ndax ku ne xam na ni mbay mi am na ay sooxe ak ay jafe-jafe yu métti metti heure bii daaw fii may waxe yow fekkoon na jiw wi tàmbalee dem notification yi doon génn engrais bi pare woon may laaj li nga xamante ne mooy mbirum jiw bi fan ngeen si toll ndax nawet bi ku ne xam na ni météo nee na. day teel a am ren monsieur le ministre monsieur le premier ministre baykat yi nee nañu heure bii daaw ki fi nekkoon notification yi doon na ko joxe mais fii may wax a yow notification génnagul monsieur le premier ministre monsieur le ministre baykat yi nee nañu kilo gerte gi ni leen ko bëgg a jaay dafa seer parce que kilo gerte gi moo gën a seer kilo ceeb monsieur le premier ministre heure bii daaw fekkoon na CNCA bi nga xamante ne mooy accompagner ñi xamante ne ñoom ñooy joxe jiw bi heure bii daaw fekkoon ñu tàmbalee leble mais fii may wax a yow banque bi génneegul benn dërëm pour accompagner noonu monsieur le premier ministre heure bii daaw fekkoon na ñu fay bor yépp fii may wax a yow deux mille vingt et la ñuy tàmbalee la ñuy fay te àggagul lan moo tax deux mille vingt deux ci li nga xamante ni mooy ñu joxe woon jiw yi ba léegi fayagul leen. monsieur le premier ministre lan moo tax baykat yi jiw yi du àgg si ñoom du dañ koy jox ay kilifa yoo xamante nii ak ay politiciens ñu di ko jaayaat di joxe ay carte d'identité loolu pour monsieur le premier ministre baykat nee na jiw yu si ñoom monsieur le premier ministre baykat yi nee nañu yow mi premier ministre comme mënoo génn Dakar dem Touba nan nga bañ a lijjantee soxlaay euh, baykat yi je vous remercie euh, merci beaucoup Euh, asalaamaaleykum monsieur le président de l'Assemblée nationale maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu honorable député yi fi ne di am mbégte ci laaj bi ñu ci laaj ndax tontu ñi ci jafewul monsieur le premier ministre am nga ñoo yebal ci terrain bi mën nañoo dem ci terrain bi xool li nga xam ne lii moom la baykat yi di jànkoonteeg ñu waxtaan ak ñoom euh, ren am na fi mesures yu am solo yu président la république jël pour la première fois mu ne danaa jël téeméeri milliards dugal ko ci mbay bi musta am téeméeri milliards yi nag fanweer ak juróom-ñett yi mi ngi jëm ci engrais et fertilisant ñaar fukki milliards ak juróom-benn mi ngi jëm ci semence gerte fukki milliards ak juróom-benn mi ngi jëm ci céréales ak yeneen. mën nañ dugg ci détails yi bu ñu ko temps bi permettre honorable député wax nga ne heure bi daaw fekk nañu fay bor yi bor yi daaw jéeg weer bi passé la ko fay bor yi nga xam ne moom lañu am daaw fas nañ ko yéene fay mois de juin incha allah kon foofu yaakaar naa ne chiffres yi wala information bi nga am du bu correct ren ci nawet bi ñu jëm c'est vrai que ñu ñëpp suivre nañ daaw nawet bi naka la doxee waaye def ci am lu am solo loo xam ne lii wax nañ ko fi gis ngeen daaw gerte njëg gi ni mu toll parce que baykat yi baykat yi dañ daan jaay seen gerte ci njëg goo xam ne gii kenn xamul lu mu toll waaye ren ku ci jaay sa gerte yaakaar naa ne yam nga lu bari loo denc sa poos moom moo tax coow li bariwul ren ci wàllu gerte gi donc lu ko waral mooy am na njëg gu baax njëg gi parce que am na ñuy jënd surtout ñi nga xam ne dañuy nekk bitim réew Euh, di ko wala boog ñu nekk Sénégal di ko yóbbu bitim réew donc jënd nañ ci lu bari. kon loolu également day lu am solo moo tax ren ngeen dégg ma ne ñaar fukki milliards ak juróom-benn la ñuy ne ci gerte gi lan moo ko waral parce que njëg dafa yokk waaye njëg bi mu yokkoo jóge ci 480 euh, francs la njëg gi la njëg gi tolloon actuellement ni 410 euh, francs la njëg tolloon mu yokk ba 600 francs maanaam njëg gi. producteurs yi ñiy jëndee ci ñoom gerte pour jiwu mais malgré cela état du Sénégal def nañ sur les cent quatre vingt dix francs yu ci yokk cent soixante dix yi maa koy gàlloo vingt francs yi la baykat yi di gàlloo loolu moo waral daaw ñu subventionné quatorze milliards rien que gerte gi ren ñu subventionné vingt six milliards loolu mooy benn ñaareel bi engrais bi également malgré la fait que ren engrais bi wàññeeku na bu baax waaye dañoo yokk bu baax li nga xam ne lii mooy jëm ci ci ci ci àll bi parce que daaw de defuñu woon phosphatage de fond ren bëgg nañ dugal phosphatage de fond malgré phosphatage de fond bi ñu bëgg nga xam ne dana dem ci cinquante mille ton malgré le que yokk nañ engrais chimique yi nga xam ne dana dem ci au moins de dix pour cent de plus prix bi nga xam ne bii moom la ñu wàññeeku na parce que daaw ko daan jënd saako urée dix huit cinq cent sept cent cinquante ren yaa ngi ko jëndee douze mille cinq cent loolu mooy li nga xam ne lii mooy réalité lu lu am solo mooy ren bëgg nañu dugal ci ci mbay mi ay programme lu mel ni blé lu mel ni tournesol parce que loolu daawuñ ko def à grande échelle parce que kenn ku ne xam na ne Sénégal li muy importé ci diwlin bari na même palmier à huile bëgg nañ ko introduire dans les régions du sud par une plantation de cinquante mille dans un premier temps parce que bëgg nañ fii ak quatre ans ñu mën am également huile de palme bu doy parce que chaque année bu ñu ko defee yaakaar naa dina dina am solo monsieur le monsieur le euh, beneen information également ci wàllu mbay mi. pour la première fois président de la République dugal fi un programme d'équipement agricole pour quatre-vingt-cinq milliards quatre-vingt-cinq milliards sur un programme ñu war a prévoir dans les trois ans sept cent tracteurs prévoir dans les trois ans cinquante moissonneuses batteuses yaakaar naa ne ku suivre at yi passé gis nga ceeb ñor na ci yenn bërëb yi mënuñ ko woon récolter parce que amuñ moissonneuse batteuse donc ren non seulement ñu prévoir loolu mais ñëw ngi négocier pour yokk tout en maintenant volume boobu ba pare fexe ba au lieu que machine di ñëw ci trois ans parce que waxoon na leen ko bi ñu suñ passé à l'assemblée machine yi di mën a ñëw ci at mi bala bu at mi di jeex donc yaakaar naa ne mesure yooyu moom la ñuy jël c'est vrai que honorable wax na ci mise en place yi fii may wax ak yow li ma la mën a wax mooy négani euh, au niveau de de tout le Sénégal fépp ku ci semence certifier c'est vrai que nag am na semence boo xam ne joxeguñ ko waaye semence certifiée yi moom joxe nañu yëpp semence certifiée mooy semence yi baax yi ni ñu war a ji tool yi joxe nañu yëpp semence yi nga xam ne yii nag béykat yi café de Rome yi ñoo ko daan jël joxe guñu ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. La bande de filao de Guédiawaye, longue de 51,8 km est comprise dans la forêt de filao qui de 180 km qui va de Cambérène à Darou Moumbay au sud de Saint-Louis. L'implantation de cette bande de Filao a commencé dans les années 1940 par l'État colonial français. Sa vocation est de fixer les dunes de sable et de protéger les populations ainsi que les zones de culture euh, de l'érosion côtière. Détruire cette bande de Filao, c'est détruire le rempart contre les menaces de plus en plus prégnantes. Or, le chef de l'État sénégalais en cours, en exercice, semble moins préoccupé que les colonisateurs au sort des Sénégalais. Là Français ont planté, lui et son administration rasent une si vitale protection. En effet, le 4 juin 2021, par décret numéro 2021-701, une première superficie de 150,58 hectares était déclassée donc 49 pour cent 43,92 pour cent réservés à l'habitat selon un article en date du 15 février 2022 disponible encore sur le site de Seneweb le Mumbai foncier pour ainsi parce qu'on s'arrête à Darou Mumbai à Saint-Louis avait permis de servir une clientèle de privilégiés 320 conseillers municipaux des cinq communes et de la ville de Guédiawaye des lutteurs des délégués, des imams avaient été servis. Au cours du mois d'avril euh, du mois d'avril 2023, une seconde opération de reclassement encore plus massive est annoncée qui va concerne 826 hectares. Pouvez-vous expliquer aux Sénégalais, Monsieur le Premier ministre, comment l'État français peut être plus prévoyant et soucieux de la protection de notre littoral? quest que la femme au foyer du Golfe, qui élève seule une famille, que la vendeuse du coin de Ndiarem Limamoulaye, que le conducteur de moto Jakarta de Golfe ou de Sam Notaire n'a pas pu, ou le maraîcher qui exploitait une superficie à côté de cette bande de filao n'a pas pu bénéficier alors que des privilégiés triés sur le volet ont bénéficié. En tout état de cause, À l'heure où dans, toute le, dans toutes les villes côtières du monde se prépare la montée des eaux, des mers et aux catastrophes inévitables qui en découlent déjà. J'éprouve comme toujours un immense plaisir de me présenter à nouveau devant vous pour échanger avec la représentation nationale au nom du gouvernement. Monsieur le Président, honorable député, honorable député Tcherno Al-Sansal, je voudrais d'abord vous remercier pour la question d'actualité qui me donne l'opportunité de communiquer à nouveau avec la 14e législature, mais aussi pour l'intérêt manifesté pour le secteur de l'urbanisme dont j'ai l'honneur de diriger, que j'ai l'honneur de diriger. En demandant, honorables député sur quelle base légale et à qui les attributions des parcelles de terrain, entre terrain, sur la bande du littoral de Guédiawaye ont été faites après avoir affirmé que la bande des Filao de Guédiawaye fait régulièrement l'objet, selon vos termes, de déclassements sauvages aux fins principalement de servir des privilégiés, je rappelle que nous sommes dans un état de droit et que l'ensemble des actes que nous posons, que le gouvernement entend poser, le sont toujours sur la base du respect des lois et règlements de ce pays. Les décrets de, numéro 2021, auxquels vous n'avez pas fait référence, 2021-701 du 4 juin 2021, approuve le plan d'urbanisme de détail de la zone nord de Guédiawaye et déclasse la zone couverte par le plan d'urbanisme de détail de la zone nord de Guédiawaye d'une superficie de 15058 hectares et le décret numéro 2023-813 du 5 avril 2023 approuvant et rendant exécutoire le plan d'urbanisme de détail de la bande de Yeumbeul Nord Malika Tivaouane Peulh déclassant une partie la zone couverte par le plan par le PUD des sites non encore immatriculés dans la zone déclassée, créant des zones d'aménagement concertées de Tuaounpel et de Kermassar, objet de votre question, ont été pris conformément aux dispositions pertinentes des codes de l'environnement forestier, de l'urbanisme et de la loi sur le domaine national. Honorable député, j'aurais pu attendre au moins que vous me disiez au moins les dispositions que nous avons violées et en cela, il n'y a aucune disposition, qui n'a été le processus pour aboutir à la, prise à la signature d'un décret. S'agissant des autres allégations, je voudrais attention que, que ce les autorités territoriales de la de Guédiawaye qui pour la première fois d'aménager la bande des Filao lors de l'élaboration du PUD de Pikine en 2017. Je signale également que le de Guédiawaye créé à partir du grand département de Pékin, actuellement avec une population de 500 000 habitants et un taux d'accroissement exponentiel, manque cruellement d'équipements et d'infrastructures de base pour jouer son rôle dans le cadre de son attractivité. En outre, il est confronté à des extensions sur les autres côtes avec les départements de Pékin et de Dakar. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, les autorités de la collectivité territoriale de Guédiawaye ont émis le souhait de se rapprocher des services compétents de l'administration pour procéder conformément à la réglementation au déclassement de cette bande de filao. Suite au déclassement et sur la base des raisons évoquées ci-dessous, la ville de Guédiawaye, avec l'appui des services du ministère de l'Urbanisme, a élaboré de manière concertée, je dis bien, le PUD de la bande de filao conforme à la réglementation en vigueur jusqu'à son approbation par décret signé par chef de l'État. Le dit plan a permis une répartition de l'occupation du sol sur cette bande conformément aux normes d'aménagement édictées dans le Code de l'urbanisme. En ce qui concerne l'affectation des assiettes, il a été fait de la manière la plus transparente avec l'implication de tous les acteurs compétents. Et pour le déclassement d'une partie de la bande des Filao du, du côté de Malika, je souligne également que c'est le même processus qui a été adopté. bor moom ku crédit bi rek koy am bor yàlla yàgg di am. gouvernement bi di fay bor bi di reconstituer loolu moo am solo le président Macky Sall bu rêvé nañu suma question fi may jëm muy continuer local lan la gouvernement bi di def ba accompagner le privé national nga xam ne suñu privé national privé bu am jom lañ tey le premier employeur du Sénégal c'est un Sénégalais montain qui a plus de mille emplois entreprise boo gis mu jógee à l'étranger suy liggéey si soo demee chantier entreprise sénégalaise nga fay gis travailleur sénégalais nga fay gis tey le président Macky Sall fi mu jëm loo ñu rêvé am ay pétrodollar ba mel ni ay Qatar ay dommage suñ ko téye buñ ko bàyyi parce que fa la ñu jëm di dundee comme Qatar yi dundee comme waa Dubaï dundee fa la ñu jëm ak le président Macky Sall je vous remercie. chers collègues. autour de cette exploitation du pétrole et du gaz effectivement ce pétrole et gaz qui a été trouvé au large des côtes du Sénégal ne serait pas sans conséquences positives sur l'avenir économique et social de notre pays. C'est vrai que ces activités n'étaient pas très connues dans ce pays, parce qu'il est évident qu'il y aura des retombées dans notre économie nationale, de façon directe et de façon indirecte. Et pour cela, vous l'avez rappelé, honorable député, oui, beaucoup de cadres réglementaires qui ont été pris pour pouvoir accompagner ce nouveau secteur qui arrive dans notre pays. jeune ingénieur, géologue, qui a fait Petrosen, directeur de Petrosen, ministre de l'énergie, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, Machallah, président de la République et qui fait rêver les Sénégalais. Donc ce président de la République qui très tôt a compris, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, honorable député, qu'il fallait mettre un cadre pour accompagner les Sénégalais qui veulent aujourd'hui que ce pétrole apporte le bonheur et la stabilité et la paix dans notre pays encore à présent en mettant ce qu'on le COS-Pétrogaz d'abord. Ce COS-Pétrogaz qui a défini les stratégies, qui nous a accompagnés, parce que ce c'était des anciens de Petrosen qui étaient là-bas. Industrie, oui. Aujourd'hui, ce contenu local, vous l'avez rappelé, c'était le décret 2020-2065 du 28 octobre 2020 qui fixe les modalités de participation des investisseurs et sociétés nationales. qui est basé tout d'abord comme premier levier sur la mise en place d'un cadre légal et institutionnel local qui promeut l'utilisation des biens et services nationaux ainsi que le développement de la participation de la main-d'œuvre, de la technologie, des capitaux nationaux dans toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière. En effet, les dispositions légales et réglementaires se loient sur le contenu local qui a été pris le ont été adoptées et mises en œuvre pour faire de ce contenu local une réalité ainsi que des institutions à charge de la mise en œuvre de cette euh, production avec le CNRS. Le second levier a été la classification en régime. Ce qu'on appelle le régime exclusif, le régime mixte et le régime non exclusif. Pour favoriser, c'est parce qu'ils connaissaient le manquement ou bien le, la, la, le manque de maturité de nos sociétés qu'il fallait accompagner pour qu'il soit au rendez-vous. monsieur le premier ministre Sénégalais yi dañoo bëgg a xam lan moo tax bu ñu gisee tey police ak gendarmerie ñu gis ci ay ci seen wet nervi ak ay milices. monsieur le premier ministre Sénégal yi dañoo bëgg a xam lan moo tax journalistes yi bu ñuy def seen liggéey ci ay manifestations ngeen di xëcc seen i micro xëcc seen i caméra di leen di dóor comme ni ngeen dóoree Adja Ndiaye bu Dakar Actu comme ni ngeen dóoree ba mu xam feuse bu Bour News. monsieur le premier ministre gis nañ ay policiers ak ay gendarmes bu ñu jàppee ay nit leen di utiliser comme bouclier humain lu tax monsieur le premier ministre Sénégal dafa signé ay convention internationale la torture. gendarmerie day torturé police day torturé ki ko mujjee wax mooy observatoire national des de privation de liberté lan moo tax ngeen di torturer sénégalais yi ba pare ngeen koy camoufler camouflage yoo xam ne ñaari yoon lay jaar benn bi da ngeen di torturer gaañ leen toj seen bopp après ngeen duggal leen kaso ba ñu wér soog leen indi justice comme ça kenn du gis seen góom ñaareel bi mooy ministre de l'intérieur bi fen rek fen rek fen rek la fi nekkee mensonge d'État di rey doomu Sénégal ba pare nan paaka moo ko rey ñu def autopsie ñu ne du paaka moo ko rey te loolu mooy le dernier rey Ngor rey Bignona rey Ziguinchor ba pare ngeen di génn di fen mensonge d'État monsieur le premier ministre lan moo tax ngeen di jàpp ay nit après di yónnee police ay gendarmerie seen kër di saccager seen i kër ki ci mujj mooy daaw Gueye bu Pikine pratique yooyu xamuñu ko woon Sénégal lan moo tax monsieur le premier lan moo tax ngeen di rey ay doomu Sénégal Ngor Ziguinchor Bignona ak feneen ba pare kenn du musa àtte ñi leen rey xanaa da ngeen jox permis de tuer aux policiers et aux gendarmes vous les encouragez à tuer et à assassiner des Sénégalais qui votent des budgets pour acheter les armes avec lesquelles vous les assassinez lan moo tax ngeen am cette doctrine de maintien de l'ordre monsieur le premier ministre lan moo tax la justice sénégalaise aujourd'hui fait également du maintien de l'ordre en amenant systématiquement les militants de PASTEF en prison systématiquement instruction ba tey instant yii nii il y a 500 près de 500 détenus politiques au Sénégal ndax lan monsieur le premier ministre lan moo tax police gendarmerie procureur ñu leen di mobiliser pour béykat yi di xeex sàccum suuf. pour liggéeykat yuy xeex pour seen payoor ba pare vous ne les mobilisez pas contre les ministres katu xaalis contre les directeurs de société nationale sàcckatu xaalis fi may daanelee ñaar la tey assemblée nationale dafa ñëw pour contrôler gouvernement assemblée nationale boo xam ne depuis septembre nee na du ñu contrôler vingt milliards yi ñu ko dénk ndax kii toog fii ngeen teg ko fan ngeen ne lii barki Dembo Ndiaye le USAID may 18 milliards askanu Sénégal pour ñu xeex mortalité maternelle ñun ñu am 20 milliards ñu koy détourné di ko sàcc ba pare ne kenn du ko contrôlé Macky Sall doo bokk Sonko da ngay bokk. je vous remercie monsieur le président maa ngi lay euh, nuyu di nuyu honorable député yi fi teew yëpp damay tàmbali ngir wax ni xañ na. question bi dafa soppeeku ci diggante bi ndax li ñu jotoon comme question mooy est-ce que la doctrine du maintien de l'ordre a changé sous le président Macky Sall en lieu et place de cette question on a eu droit li ñu xap li ñu gis fii dégg ko fii léegi ay affirmation gratuite la waaye du question ay critique ay saaga ak ay wax yoo xamante ni àndul ak worma ba tax na li ma bëggoon a leeral ci lii nga xamante ni moo fi jut léegi ci li ñu dégg mooy damay tàmbali ngir di massawu ñi nga xamante ni ñi ngi seen kër bokkuñu ci manifestation dugguñu ci manifestation di ci yàqule wala ñu ciy deele te ñi nga xamante ni ñoo leen di yàqal duñ ci sax léeg-léeg xosiku dañuy toog seen kër wala seen bureau seen ginnaaw ordinateur wala ci seen téléphone di jël ay xale di leen jiiñ ci kaw ay force de l'ordre yoo xamante ni seen ay kilifa lañu seen ay ndijaay lañu seen ay papa lañu seen bopp lañu Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar damay d'abord euh, incliné wu pieusement ci képp ku faatu Sénégal du ma ci teg loolu du ci yam fi ci loolu dama ci teg ni képp koo xamante ni gaañu nga maa ngi lay masaw ndaxte maintien de l'ordre boobu ngay wax honorable Guy Marius Sagna li ko tax a jóg du ay ennemis li ko tax a jóg mooy ñu bokk ci askan wi waaye nekkee ci benn comportement benn moment boo xam ni dëppoowul ak li yoon tëral ñu war a xool nan la ñuy fexee ba encadrer leen wala nan la ñuy fexee ba ñu exprimer seen ay opinion te kenn du ci gaañu waaye lii ñuy dégg fii tey di ko dégg ci mbedd mi muy di indi soxorte di indi noonoo ci biir Sénégal loolu mooy li nga xamante ni. noonoo euh, monsieur continuez S'il vous plaît, pouvez Alors, chers collègues, le ministre, vous la parole. Vous pouvez bi ñu jotee question bi démb may ñëw am na loo xamante ni moom la ñu waajaloon sax ci tontu te li ñu waajaloon ci tontu lii la maintien de l'ordre doctrine bi soppeekuwul pour répondre ci question bi nga xamante ni moom lañ jot ndax principe de base yi nga xamante ni ñoom ñoo koy conduire ba léegi ñoo koy conduire waaye am na lu soppeeku li soppeeku mooy ni ñuy manifester ni soppeeku mooy discours haine discours violence discours discours bu mel ni bu sa discours yow tu es le soppeeku li soppeeku alors li soppeeku li soppeeku mooy jël ay sénégalais di leen dóor ci yeneen sénégalais li soppeeku mooy yaakaar ni wax ni ay xale xam nga nit bu ànd ak xel nit bu ànd ak xel ànd ak sago du wax ay xale yu ndaw dem leen ngeen song ay alkaati du wax ay xale yu ndaw dem leen ngeen song brigade gendarmerie. du wax ay xale dem leen ngeen songu commissariat du wax ay xale dem leen ngeen di songu ay këru responsable maa ngi leen di nuyuwaat di leen sant di leen gërëm di tàmbale ci président Thiam ma lay masawu di masawu assemblée nationale yëpp di leen jaal ki fi mujjee jóge ndax seede yi ñu seede ci moom ak li ñu jot a gis ci moom nit ku baax la ku liggéeyal Sénégal yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana bi ñu ñëwee aussi président observé na une minute de silence ku nekk ci ñu ñaanal ko ci li nga gëm moom ay mbébét yoo xam ne amoon na ko jëm ci lycée jëm ci centre de santé ci Pout incha allah gouvernement bi am na un programme ambitieux de construire des lycées un peu partout tàmbali nañ ko tout comme sunu carte sanitaire ñu ngi koy yaatal. président def ci ay infrastructure yu mucc ayib ci at yi at yi passé dinaa ko noté bu soobee yàlla dinaa ci waxtaan ak ministre de l'économie ak ministre des finances ak ministre de la santé bu éducation pour que plan d'action prioritaire bii nga xam ne ñu ngi koy waajal ñoom dinañ ko gëstu te dinañ la ci tontu loo xam ni dinañ ci wax ak yow buñ ko yàlla may ñu fekkee ko te tal mais incha allah lépp lu jëm ci askan wi. gën naa ni buñ ko waxee président Macky Sall dina wax ne ci gouvernement bi taxaw te dinañ ko def bu soobee yàlla bi ci topp muy président yum am na loo fi yëkkati jëmale ko ci résultat plan Sénégal émergent te ministre de finances Moustapha Ba waxoon ci léegi dañoo jëm ci élection réew Afrique yu bari nag aado bu ñu jëmee ci élection du ñu uti programme ak Fonds monétaire international daa gën a yomb ngay doxal sa réew sans transparence daa gën a yomb ngay doxal sa réew amoo benn préoccupation lu dul élection ba nga xam ne boo ci jógee réew mi mën naa yàqu loolu nag du gis-gisu président Macky Sall du gëm-gëmam moo tax mu ne woon na gouvernement bi négocier ak Fonds monétaire international ñu négocier ak ñoom jubook ñoom mais may rassurer honorable député Seydou Diouf politique sociale bi nga xam ni gouvernement bi amoon na ko dara du ci soppeeku axe yi nga xam ne wax nañ ko ak fonds monétaire incha allah bi dina ko respecté moo xam gestion finance publique transparence moo xam euh, résilience bi nga xam ni won nañ ko euh, def ci lépp loo xam ni ak transparence li ñu war a doxal ak gérer aussi les questions d'environnement lépp incha allah gouvernement bi dina ci taxaw am nañu yaakaar at bii ñu nekk buñ koy jeexal dinañ am lu mu gàtt gàtt croissance 6 virgule 3 pour cent wala ba 6 virgule 4 pour jàpp nañ ni at bii di ñëw muy 2023 lu mu ndaw ndaw Sénégal dina am croissance boo xam ni dina jege 9 pour cent 10 pour cent sax lañu ñu bëgg mais dafa di. pétrole bi ak gaz bi buy tàmbali dafay tàmbali daanaka ci semaine wala boo 15 jours yu mujj ci mois de décembre mais gouvernement bi dafa jël lépp wékk ko ci transparence wékk ko ci liggéeyal askan wi looloo tax ci fukki at yi passé plan Sénégal émergent ñu am ci ay résultats yu mucc ay bu ñuy wax émergence li ci li ñuy njëkk a wax moom mooy croissance Sénégal tegale na daanaka ci fukki at yi di ñëw en fukki at yi passé en moyen am nañu croissance su 6 pour cent bu dul woon sax li nga xam ne am na fi ci Covid bi muy 2020 ak 2021 kon heure bi doon nañu fekk ci beneen situation mais loolu taxul Covid bi li muy metti métti. fondamentaux économie bi nga xam ne am nañ ko tax na ci wàll koom-koom na mu waroon a méttee méttewul noonu yëpp tax na it ci deux mille vingt deux bi passé ci subvention yi daanaka yegg nañ sept cent milliards te dégg nga Moustapha léegi bi muy wax quatre cent cinquante yi nga ñu nataloon gis nañu pour gën a jàppale askan bi ndax loolu la président bëgg dinañ ci yokk à peu près cent cent cinq milliards mais fukki at yi passé boo jëlee bilan au plan Sénégal émergent PAP bi ñu mujjee def donte am nañ ci ay jafe-jafe résultat yi on a atteint objectif ak à quatre pour cent et fan yii di ñëw ministère de l'économie dina ko siiwal axe bu njëkk bi mooy transformation structurelle ci fànn boobu am na yoo xam ni boo ko waxee yomb naa vérifier. ci wàllu énergie ñun ñëpp gis na li fi xewoon tey jii la production a été multipliée par trois on a à peu près à peu près euh, ci wàllu euh, énergie plus de mille cinq cent ki mégawatts yi ñu installé ci wàllu route c'est plus de trois mille trois cent kilomètres de route la ñu def ci fukki at yi passé tali moom kenn du ne nii niiw am na te nga doo ko mën a vérifier ku mu neex rek nga wàcc tali bi tey jii dem Sédhiou walla dem Kédougou walla dem Podor walla dem maatam gën naa yomb dem Bargny wala dem fii ci sëb Diamniadio am nga ci sax bu la neexee jël autorail muy TER bi wala nga jël autoroute et incha allah balaa at bi di jeex. wala bu dee jeex ñu jëm ci at bu bees bi 2024 di nga mën a jël TER bi dem ba Diamniadio ba ci aéroport bi mën nañ ko wax ci céréales mais aussi mën nañ ko wax ci développement wu capital humain du ñun ñoo ko wax àdduna yëpp a ko wax espérance de vie li ñu yaakaar ni nit war na koo dund ci kaw suuf ndax dañ koy xayma yàlla nag mooy joxe ay fan ku ko neex ak nu mu ko neexee waxewuma boor boobu waaye nit ku nekk war ngaa sabablu am ay jumtukaay yoo xam ne war na la mën a dimbali ci sa dund en Afrique au sud du Sahara Sénégal bokk na ci réew yi ëpp matukaay pour am ay fan yu gudd 68 ans loolu Sénégal am na ko du ñun ñoo ko wax ñun wax nañ ko mais institutions yi nekk ci àdduna bi yëpp dëggal nañu dëggal nañu loolu kon bu ma dee wax ci bilan wu plan Sénégal émergent mën nañ fee toog ba suba ndax léegi Sénégal ku la ku mu neex mën ngaa ne lii doyuma wala bëgguma woon lii lii laa bëgg waaye taxaw rek ne gisuma dara defuñu dara kenn sañu ko wax amul nag fooy dem ci Sénégal te mën ngaa taxaw ne fii gouvernement bi ci fukki at yi passé defu fi dara bu la neexee nag mën nga ne bu ma sañoon duñ fi def dispensaire école la ñuy def wala duñ fi def tali bi forage la ñuy def loolu am na ndax lépp motagul loolu it ñu ngi koy nangu mais amul secteur amul domaine boo xamante ni defuñu ci des progrès significatif am nag ay laaj yu ñu fi laaj léegi jëm ci yenn situation yi mooy wax ci ngor c'est une situation que je connais très bien terrain boobu andi xëccoo bi xam naa histoire mais tey du loolu moo ñu andi fii ba ba ko état bi di exproprier en 2010 voire 2011 muy terrain wu 6700 mètres carrés comme toute gestion foncière état am na lu mu ci bëggoon def am nu population yu gisee je dois dire que waxtaan nañu waxtaan yu sore sori parce que loolu mooy volonté au président Macky Sall dañuy waxtaan di jubóo moo gën les accusations gratuites moo gën la médisance moo gën aussi toog rek amul lenn lu la yitteel mooy fexe ba nit ki yàqule walla ba nit ki am lu ñaaw gàkkal ko loolu amul solo waxtaan nañu ñoom et les autorités municipales ont fait preuve de grande responsabilité parce que bu ñuy wax waxuñu en termes de couleur ku mu neex bor neex nga fayee ko mais un État un gouvernement est au service des populations un gouvernement met en œuvre une vision dans notre pays et c'est la vision du président Macky Sall c'est une vision qui est basée sur la concertation et sur le dialogue et c'est pourquoi il continue d'appeler depuis dix ans toutes les composantes de la nation à venir dialoguer avec lui sur toutes les questions lu waay neex mën ngaa ñëw ñu dialoguer kon ci ngoon bi ñu amee revendication yi waxtaan nañu mën naa wax ni li ci ëpp juboo nañ ci parce que li leen yitteel mooy dañoo am ay gis-gis ñun li ñu yitteel c'était pas une occupation à des fins privatives parce que dañ koy jox diw wala joxuñu ko diw déedéet c'était pour des infrastructures de sécurité ñoom ñu ne soxla nañu sécurité soxla nañu lycée ñoom ñu ne soxla nañu yeneen infrastructure et justement depuis cette date ñu ngi liggéey ci zone bi et incha allah avant vendredi le ministre de l'éducation nationale va recevoir le maire ñu wax ci projet lycée bi terrain yi fa nekk yépp dinañ ko aménager séddale ko ba nga xam ni gouvernement bi uti ci dara amul keneen koo xam ni mu ngi ciy ut dara lañ fay def yépp intérêt population yi la moom le président bëgg maintenant bu ñu amee situation boo xam ne les intérêts sont en jeu naturellement nous sommes une démocratie kii mën na ko gisee nii kii mën na ko gisee nële parce que terrain bi ñuy wax camp gendarmerie lañ fa bëggoon def ñoom ñoo hébergé woon gendarmerie ñoom ñoo fa woo gendarmerie depuis 17 ans kon bu fa gendarmerie bëggee def ñoom ñu ne soxla nañu lycée wala soxla nañu leneen lu dul lycée kooku dañuy dajale jaboot gi rek xool la fa nekk nan lañ koy séddale nan lañ ko fay nan lañ koy bokkee ndax lañu fay def yëpp war ko fa def du mairie bee ko fay def du kenn na ko fay def gouvernement bi moo ko fay def. am na aussi beneen question bu ñuy wax léegi jëmale ko ci collectivité territoriale oui politique gu président Macky Sall c'est la territorialisation intégrale naturellement dans la mise en œuvre mun naa am ay jafe-jafe. parce que ni ñu séddalee alal ji ni alal ji séddale ci biir réew mi dafa am inégalité li ëpp mi ngi ndakaaru nous sommes encore un pays sous-développé après tu as quatre ou cinq villes yoo xam ne tu trouves des infrastructures majeures c'est ce qui fait la pertinence de la vision du président de la République en termes d'équité territoriale en termes d'équité sociale c'est ça la pertinence parce que bu ñu continuer li fi nekkoon on allait tout construire à Dakar et rien à Sédhiou rien à Tambacounda ou ailleurs. Et maintenant, nous Maintenant, il y a effectivement des préoccupations. On va continuer. Sur la hausse des salaires, la balle est dans le camp des maires. On a demandé un audit de Nyodink à la Réumi. On a demandé un audit de qui est dans la fonction publique. Les gouverneurs sont en train de faire le travail, et tous les résultats ne sont pas encore disponibles il y a des maires qui sont disposés il y a d'autres maires qui ne peuvent pas encore mais bu ñu paree loolu lépp dañu koy waxtaanee xool exactement comment pouvoir régler le problème ñu jëm ci ay torture ak maintien de l'ordre yàq-yàq yi ëpp na les appels à la haine ëpp na oui monsieur le président Birame Souleye xam nga ni xam naa la man xam naa ni xam nga ma bi ngay judd ci administration fekk na daanaka may jeexal xam naa ni ku baax nga xam naa ni que tu es bien éduqué ngalla bu la politique yàq tu as un bel avenir je te le dis en toute amitié maintenant Maintenant, maintenant, arrêtez le sabotine. Arrêtez le sabotine. Tu sais bien que j'ai de l'affection pour toi. Maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant. moo tax mu jaaxal ma ndax dafa am loo xamante ni bu ko boo ko gisee nit ki daf lay jaaxal li ma bëgg a wax mooy en terme de maintien de l'ordre en terme de maintien de l'ordre je félicite les forces de défense et de sécurité bu ñu amul woon professionnalisme bu ñu amul woon sang-froid li ñuy gis ci yeneen réew yi la ñuy gis fii Maintenant, maintenant, maintenant, nous sommes un pays de droit. Nous sommes un pays de droit. Nous les enquêtes, toutes les enquêtes, toutes les enquêtes sont en cours. toutes les enquêtes sont en cours et bu jotee bu jotee li ci justice war a wax li ci justice war a def dina ko def